man maay vice président zone bi kon euh, me représenter euh, suñu président muy euh, maître Sène waroon na fi teew tey ci remise subvention mais aussi dafa am audience joxe na gàntam wax li tax mënul ñëw bon li ñu fi dajale aussi li ñu ci jàngee euh, d'abord di remercier aussi le maire si ak ak euh, municipalité bi si li nga xamante ne nii defal nañ ko la jeunesse anoise wax parce que du loo xamante ne c'est les zones mais toute la jeunesse lañ ko defal donc euh, ñu ngi leen remercier vraiment di wax aussi rafetlu nañ daje bi nga xam ne moo ñu fi vraiment am na lu moi, ci jàngee mooy ci aussi moi, li ñu ci jëlee mooy li nga xamante ne nii mooy ci maire bi

nee na bon rafetlu na ma maanaam implication sur le plan sportif ci mhm. commune bi mhm. mais aussi ñawul no tout manam sen manque d'implication sur côté social ak côté environnemental ci commune bon waaw lolu dégg nañ ko doléance bo xamné dafa ñëw sax après ñu wax bu pare mais su fekkonte ne mun ñëw na avant mon nañ ci def ben peut-être réplique parce que aussi quoi qu'on puisse dire bon ñun on est là pour la jeunesse kon lepp lo xamante ni nii su waat soit si mairie bi lay jógee wala mu jóge fenen ñun buñ ñu si buñ ko yëgalee gisuma lan moy wara téré ñu ñëw taxaw parce que on est là pour la jeunesse kon lepp lo xamante ni rek dafa concerner jeunesse bi concerner an ñun gisuma lan moñ ci wara téré taxaw loolu mom li ma si wax moy ñak yëg la lepp luñ ci yëg rek luñ ci mën ñun dinañ ko def inshallah allah loolu moom amul problème quoi. si revendication bi ngeen bokkoon aussi manam ci walum revalorisation subvention yi. su côté bo ñom lan lañ ci toll en tant que lañ si wa bon loolu euh, mun nañ ci wax xëy na nañ ko fii léegi nii mais waxoon nañ ci avant parce que am nañ benn réunion boo xam ne am nañ ko avec le maire il y a pas longtemps discuter nañ ci wa def nañ proposition jox ko moom aussi mi ko doon étudier actuellement non ñu ngi xaar.

C'est euh, une euh, question qui est très importante. Parce que 5 aussi, si vous voulez dire les paroles pour la zone, vous avez dit que le football est un peu plus que Ce n'est pas évident. Parce que nous sommes tous les gens qui ont des maquillages, mais tout le temps, nous avons des quatre. 5 ans dañuy jóge fi di déplacer di dem ba Pikine di fa football yi di seetaani football te xam nga rôle avec tous les risques te ku si nekk fii yaakaar naa sa dom bu fi jugee dem tant que ñewul sa xel du dal te match yi bala mo jeex ay 23 trois heures jot kon lool nak vraiment ñaax la bo xamanteni dañ koy ñaaxaat le maire muy lim fi wax sank mu taxaw ci ba nga xamné ne inshallah incha stade municipal bi ñu wax na dañ koy tabax ñu tabax ko ba mu mëna paré mu praticable ñu mun fi jouer lool mom vraiment bu ko défé dina def lo xamanteni ni comme niñ ko waxé bo jëlé fi commune yépp ànd rek mo fi am stade municipal bo xamné mom moko défaral ci posam kon loolu yaakar na euh, ndam la ak succès la ci maire lo xamanteni ni bis bu ko défé dina yegg ni amna na lu mu def pour la jeunesse amna na lu mu def pour la population anoise vraiment lool mom ñu ko ci xaar bu baax baax baax jàppaat ma la merci beaucoup jërëjëf